ay ca wuro wa dem na këng wax mag dem dañ taali dàgg war na mbaam lu waay doon jaay léeg mu lamb Buldozer juge Malika yëmbal di caatu yaraax mu juge yaraax Dalifort ndaysaan mbokk yi xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi arbitre bi ngi wax ak ñoom ñaar li règlement bi nangu li mi bi bañ ndaysaan arbitre bi laaj na ay laaj na Bulldozer laaj na Caatu Yaraax arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 27 février 2022 arène nationale journée Ndiaye production Fallou Ndiaye il est 21h53 minutes Bulldozer Caatu Yaraax Caatu Yaraax moo la woon ginnaaw Bulldozer nga jàkkaar lool Bulldozer jiital tànk ndijoor Caatu Yaraax jiital tànk càmmoñ ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk wax nga sa waaye fi mu toll ni jëf moo ñëw na Caatu Yaraax sànni na dóor mu daanu wala déet dóorante nañ Buldozer jàpp na Buldozer jàpp na mbot na daan na Buldozer wala déet lu xew lan moo xew wéé Buldozer wala déet Buldozer wala déet génn leen saako bi day woote waat wala déet hee action bi rëy na action bi rëy na action bi rëy na Adama première action bi lan moo xew <laughs> laay laay lan laa caatu yaraax Bulldozer ah, sit am na wala amul. action bi kan moo ko kan moo tànte dañoo yeggandoo suuf wala daa ku jiitu ah xale yi pare nañ de xale yi pare nañ de xale yi pare nañ de dañuy bëre waat arbitre arbitre dañuy bëre waat bi sifle waat na mbokk yi Buldozer Caatu Yaraax Buldozer ngeen jàkkaarloo Caatu Yaraax moo la woon ginnaaw ah! am na ci sëriñ benn bu am lay de xaw ma ci kan la ci ñaari mbëri ah cokkaat na Caatu Yaraax cokkaas na Caatu Yaraax dal na par rapport ak bu njëkk bi Bulldozer nga koy déglu Bulldozer Caatu Yaraax Bulldozer door na Caatu Yaraax fayu na Bulldozer Caatu Yaraax ña ngay xeex Caatu Yaraax ni muy xeexee baax na Bulldozer jàpp na ko roggante na ko mbégg nañ suuf Caatu Yaraax bi lu nar a xew ña ngay bëre hee waa lii lan la Ousseyn lii lan la. bàyyi ji ñaari xale yi dañoo ñeme yaantoo dañ maa bett. non mënu parce que xas-xas loo bi nekk seen diggante ñoom ñaar bu ñëwee faw ñu jëflante waaye ki début désert ndaanaan la bàyyi ji waxoon naa ko léegi am na ko ne ma combat bi dina gaaw ma ne ko mën naa bañ a gaaw ndax bi désert doo gis combat am bu gaaw. caatu Yoof nag tàmm na ci tàmm nañ ci moom combat bu gaaw mais tey naataangoom la dajal moroomam la dajal moo tax faw ñu jëflante ñoom ñaa bàyyi. combat bi bu yàggee est-ce que du doon avantage Buldozer. waaw mën na nekk avantage ndax yàgg naa bëre lu mel noonu caatu Yoof nag tey dafa war a teey war naa teey ndax na nam daan bëree su ko andee résultat amul na teey xolaat bu baax a baax ki muy bëreel nawleem la xale la boo xam ne dafa am fu mu teg bëtam xale la boo xamante ni nii bëgg na làmb te boo demee lu simple di ko fa fekk da xam ne moom daanaan la ba tax na ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi def épreuve de force caatu yaa fàq na ko fàq na ko daan na ko caatu yaraax daan na Bulldozer caatu yaraax caatu yaraax daan na Bulldozer bëre nañ Bulldozer caatu yaraax Buldozer daan na ko wala Caatu Yaraax daan na. lamb ngi nii ma ngay jooy. bul dóor bul dóor. waaw xam nañ ni yoon may xam nañ ni yoon may bu soobee yàlla nañ ko def. ba pare sa waay di ko déclenché mbot booy ñu ñëw woote waat jaax. lan xool lii lamb dafa metti booy bi kii xale ndaw la lamb da koo yaakaar. tey ay recours moo mën a ñaax mais ñëpp gis nañ seen ñëpp teg nañ ci seen bët kii dafa daanu leen yoon. am na lu ñu yoon may dañ koy def mais lii neexul ay def recours du yoon kii xale bu ndaw dañ ko waroon jox victoire am kii dafa daaru bu yàgg